الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي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 ngir dafa wax ne jot ab dongale ca kër ga bu topp ci gannaaw kilifaam kon am na jataay yoo xam ne mën na caa bañ a bokk ngir ginnaaw ki koy teew na ci moom su boobaa amatul darajee teew ko moo tax mu yebal ñi ñu mu ñëw teewal ko sëriñ Cheikh moom sañaat yoo ngi nii ànd nañ ñu mag ñëpp ci kër Cheikh Moustapha ñu ànd ñoom ñëpp dikk teew ci sa kanam ànd ak seen doom ji nga xam ne seen jëwri na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 ñëpp teg nañ sa bët mooy dara ñorul la wutoo dara wutoo yenn dara ji àdduna xëccoo woon lenn ci àdduna sëñ Tuubaa rek lañ tënk loolu nag ku bëgg a jëriñu sëñ bi dana nangoo topp ci yow te kenn ku ne la nga ba nit ñi jàppee la dara sëriñ bi la ka la kon soo bañee gore di ku ko fi neexal te mel ni yow day topp ci gannaaw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 sëriñ bi yàlla na fi yàgg tiwér sëriñ Amadou wax ne noo bokkam yi ñu bokkal sëriñ bi ak njaboot gi sëñ Tuubaa jox seeni wajur teraanga te ñu ànd moom ngir bëgg a fay teraanga jooju ñoo ànd dikk teew fi sa pegg tey indi li ñu am di la ko jébbal si ngir jëmi sëñ Tuubaa dañ koo def seg nag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 ñu ñaanal la yooyu sa mooy jotaay bi mooy waxtaan wi wa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee na. mënu ma cee wax lii nee na ak cant. ndax ni mu demee fa man. ni mu. mënees naa weesu ak fi moom. su fekkoon mënees naa weesu ak cant. kon lii day weesu ak cant ci moom. dama daa xamul dara ci boppam. waaye lii. waaye lii. dama jàpp ne lu ma jomb la. nee na daa jàpp ne da koo jomb. bu doon maanaam kese. jàpp naa ne lii lu ma jomb la. day jàpp ne lii da koo jomb. man de xaw ma ci sama bopp dara. nee waaye xamul ci boppam dara. waaye jébbale woon naa sama lépp. nee na waaye jébbale woon na léppam. am na lu mu ciy fàttaliku baat bu ma daa wax suñu Ahmad Maxtaar mii mu ne am na lu mu fàttaliku baat bu mu daan wax sëriñ Ahmadul Maxtaar mii daanaa ko wax ne ko yow de ñoo la yilif waaye yaa ngi yilif ci wet ndax Cheikh Moustapha nee na daan wax sëñ Ahmadu mii ne ko yow de noo la yilif waaye yaa ngi yilif ci ak wet ndax Cheikh Moustapha loolu mooy dëgg ci man nee na loolu mooy dëgg ci moom sama diggante ci diggante moom moom diggante kër yi diggam ak kër gi kon daal man mënuma cee dolli dara nee kon moom mënu cee dolli dara hmm, gën leen a gën leen a seereel ne lu dul gën leen a seereel ne maa ngi noo guma noyyi nee na noo guma noyyi mi ngi maa ngi ci fas yéene gën a yeesal sama jaayante sëriñ mi ngi ci gën a fas yéene yeesal ak jaayante ak sëriñ seen jéego yi ak seen jataay bii seen jéego yi ak seen jataay bii fedd li ci sama laxasaay fas yéene gën a sax ci liggéey sëriñ bi rek moom laay moom laa koy moom laa moom laa koy def nee na seen jéego yi ak jataay bii fas yéene cee fedd li ak laxasaayam fas yéene liggéeyal sëriñ bi rek fas yéene ko ànd ak ñoom rek fas te fas ko yéene ci sama yéene te nee na ci yéeneem di la mu ci bëgg di la ci bëgg bu ñu doon tànnloo ñu ko doon tànnloo rek damay wax ni yéen nañ leen fay ba noppi. nan lay wax ni comme yéen nañ leen fay ba noppi. ngeen na ci sama kanam. ngeen na ci kanamam. mu ne ci seen ginnaaw. mu ci seen ginnaaw. bu ñu ko doon tànn loolu lay wax. nee bu ñu ko doon tànn loolu loolu lay wax. kon nag jërëjëf. nee na kon jërëjëf. ak kilifa yi nga àndal ak bokki taalibe yi yi nga àndal ak bokki taalibe yi yëpp. maa ngi leen di sant seen cant bopp bu rëy. nee na mi ngi leen di sant seen cant bopp bu rëy. dëgg la naam jëfe yàlla la. nee na dëgg la naam jëfe yàlla la. ak pàgguteefu Serigne Touba. ak pàgguteefu Serigne Touba. waaye itam dama cee xam nag seen yéene. waaye da cee xam seen yéene. ak seen yitte. ak seen yitte. mu sori ci man lool. mu sori ci moom lool. diggante ak yéen. ci diggam ak yéen. ba tax na loolu kon. nee na ba tax loolu kon. amel naa leen cant bu rëy.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 weesu naa foofu. ndax weesu na foofu. mën ma wax ne sama xel dal na. mënta wax ne xelam dal na. ndax loolu weesu naa ko ci seen jotaay bii. na so am soññu soññu soññu rëy ci sama bopp. nee na am na soññu wu rëy ci boppam. ci seen jotaay bii. ci seen jotaay bii. kon lépp sama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 te muy te muy sunu léppi tey ak ëllëg. te muy sunu léppi tey ak ëllëg. di sunu biir di sunu biir di sunu bitti. sama mbégte am ci yéen. nee na mu am ci yéen. moom rek rek la koy seeral. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin